di wax ne tey li ñu fi dajale ñun mooy jëmmal euh, santaane bu son excellence Macky Sall président de la république du Sénégal mu ne bésu tey bi li ma ci bëgg mooy ngeen jël ñaari junniy njël ak ñetti téeméeri ak ak ngeen jox leen ma leen ñun dafa tànnal boppam moom président jaar ko ci ministère bi yore loolu ministère Mansour Faye développement communautaire équité sociale ak territoriale dañoo yónnee listu junniy njël ak juróom-ñetti fukki juróom-ñetti téeméeri njël ak juróom fukki njël ak ñett nañu càmbar leen ko ba am ndax amu ci ay njuum teg yooyu ku ñu jox ñaari yoon ak yooyu càmbar nañ ko la ca dëppoowul ak la ca doon erreur corrigé nañ ko jox ko sous préfet mu delloo leen ko kon loolu wéral nañ defar nañ tan nañ nit ñeenti téméru njël yenen ak juroom ben fuk ak ben ñu ngi leen tànne ci biir dëkk yi ci penc ya ci penc ya borom dëkk toog bàjjenu gox yek tok directeur école bi tok imam bi wala ki tolal bi tok jeune yi tok ñu tan leen amul ben ciow kon japp nañ ni terme de référence yi ñu nguur gi joxon ñun respecté nañ ko ba ñi ñu wara jox tay moy ñu wara jot ndimbal li lan lañ war a jot ñaari téeméeri tonnes ak fanweeri tonnes ak benn yu teg ñeenti bërigo ceeb moom la jox jox ñu ñaar fukki tonnes ak ñett yu ton teg bërigo ak ñeent fukki kilo moom la ñu jox ci suugar jox ñu ko ci macaroni jox ñu ko ci diw jox ñu ñaari tonnes ak ñetti téeméeri bërigo ak fukk ak ñeent. ci saabu loolu la commune bu Latmingué jot mu jëm ci ñaari junniy njël yeeg ñetti téeméer ak fukk ak ñeent kon nan lañ ko nar a joxe mooy xam nga ne ku ñuy dimbale bu dee ci kaw gi nekkul ku war a am saret fooguma ko ku mën a dox fukki kilomètre jël ci ndimbalam fooguma ko maanaam daal ku néew doole la doon la doon ki ñuy dimbale ñu xam loolu te xam ne nawet dëgmal na ñun loué ñaari camion yu 16 tonnes pour mu jël ndimbal fi ci Latmingué yobbu ko ci dëkk yi séddale ko pour mu gaaw mais aussi pour mu woyof ci ñi mom ndimbali lolu man maire mako décider nar ko défal sama bop benen bi moy sécurité baa fi waxna ko sous préfet mu dimbali ñu ba élément yi mot ndax liñu bëgg liñu liggéey mu yegg fi dañu bëgg mu dem ba le 29 fi ñu ngi koy door tey ñu ngi jeexal le 29 juin bu soobee yàlla pour dem ci juróom-ñetti fukki dëkk yi ak ñeent kon bëgg nañ le 29 ca ngoon yan ci yàlla boole dimbale ñëpp wax alhamdulilah des na ñaari junniy njël ak juróomi téeméeri ñooñu dinañ ci jël diggante junni ba junni ak juróomi téeméeri njël loolu maa ngi jël engagement bi pour jox leen ku ci nekk saaku ceeb waxuma ñaari saaku ceeb waxuma ay saaku ceeb ab saaku. ceeb parce que le président man ñun mënuñu ko loolu nag maa ngi ko nar a jëlee benn ci virement de crédit bi ma defoon ci mairie bi nga xam ne jox na ma 9 millions waaye xam ngeen ne loolu sore na compte bi maanaam li mu soxla pour loolu mën ngeen a multiplier junni 1500 par 50 kilos di ngeen xam ni muy joxe dinaa ci teg samay moyens bopp ak sama partenaires yi nga xam engagé wu pour gunge ma dimbale ma ci lu ma dimbalee sama askan. man bëggoon daaneel ci gërëm président de la gërëm bu am fu mu commencé waaye amul fu mu yem lu tax bourse yi baaxoon na ndax ñu néew doole waaye bu dee bii moom ñun def ñoo gën a laal ñun ñi dëkkee goxee goxaan lu tax mooy ñun mbéy la ñu yaakaar yaakaar ñu leneen jël na budget nguur gi waroon dem ci mbéy mu waroon nekk 40 milliards mu def ko 60 milliards yokk ci yeneen 20 milliards maanaam lu tolloo xaaju li mu joxe woon la ci dolli

Euh, distribution bu aide alimentaire vraiment di rafetlu bu baax nu euh, nu mu déroulé wu en tout cas man ba fu may tollu ni jotaguma ben réclamation par rapport ki nga xamantene ci jëm si walu tànnin bi lolu aussi makoy deugal et que japp naa ni vraiment process bi va jaar na ci yoon ndax deguma ben réclamation bu ñew ci man nan man dañ ma baña jël ak yoy ñuy rappeler kamit

daje ci penc ba comme ni ñu ko waxee ñu def tànnin bi tànnin bi tamit dañ koy def jaarale ci yoon ndax dafa am ñeenti critères yoo xamante ne moom la ñu jagleel pour ñu mën a tànn euh, njël njël la ñu wax nag njël njël la ñuy tànn ci euh, ñi nga xamante ne ñoo gën a néew doole ñoo xamante ne mbas bi laal na leen bu baax donc loolu ma koy rafetlu rafetlu bu baax euh, déroulement bi en tout cas gisuma ci benn jafe-jafe